بلا سخط مصادني من بني لا أنصار إلا يكون لدى أدار مرمد من أدارنا وفي ممن إلا الذين إلى تزار فسدوا

ba di di ba yi xaadir yi laayeen yi tiijaan yi ñun ñëpp benn lañu amuñu xaajali ko seede yàlla lu xew luñ sumb ñun ñëpp ñoo koy bokk loolee nag daaw nee naa la woon Mbàkke nga ñaanal ñu ci bu baax a baax ba mu sax waaye yokkute dong lañ ci gis boobaak léegi te jàpp naa ni day day sax ba dàkk waaw gone yiitam dénkoon naa li leen daaw ni la ñaanalal ma leen bu baax a baax Mbàkke loolee itam maa ngi koy sànkuwaat ci ñoom maa ngi koy sànkuwaat ci yow bu baax a baax Mbàkke ndax fa ñu war a jaar ñu ngi fay jaar fa ñu war a jaar lañu war a def itam ñu ngi koy dox fii ak léegi maa ngi fi doon dox waaye ñoom ñi jàpp naa ne ñooma man bennoo gi nag nii ma la ko waxee diggante la Firenze ba ci Prato gi ñun ñëpp benn lañu ñaanal ñu bu baax Mbàkke kàddu yi nag damay bàyyi xaar mais mu àggale ko waaye maa ngi sàkk ci sa doole maam ja nga ñaanal ñu mbàkke bu baax a baax ba lii sax sant nañ la bu baax a baax nag mbàkke gis nañoo tam ni nga nu jàpp taxawaay bet gis nañ ko bu baax a mbàkke yal na yàgg yal na yàgg mbàkke yal na yàgg ci doole yi sëñ Abdou Khadir mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbooloo mi ñëpp ñu ngi lay ziar soppay seigne abdou khadir yépp ñu ngi lay ziar julit yépp ñu ngi lay ziar di wax ni ziaru tay bi de fekk ci gi ñu fi fekk ci ni xel munta xiyaas maanaam kontante gi nga xamanteni ci si ñépp na ci dippi ñom bo won ko yegge ba legi ñépp dañoo kontaan di xaar bis bi ak waxtu wi te lepp itam di sa mam ja di am karat bu baax ci yow itam ngir li ñu daan dig ñu ci tek suñu bëtt ba suñu jonni tay ji ñeppit bayyi seen yitte ngir bisub tay bi nam amna galankor nak waye du galankor ndax itam fi ñu nekk fi di day son industriel manam day kay manam ci cinese yi dafee bari bari go xamni ni ño fi joxe liggey yi ci ëpp te itam motax ba mbokki talibey nit bu amul lum japp du mën a def dara ba ñu ci bari ci cinese yi ci lañuy liggéey nag cinese yi nag heure yi daa bari lool ba nga xam ni a ah, li ñu war a def ci seen aajo yi mbokki taaliba yi duñ man lépp duñ man di teew daayira na man na mu ware duñ man di def yeneen ibadaat yi nga xamante ni moom lañ seq ak mbokki mbokki jullit yi ba tax na fi ne daayira bi itam lu mel noonu moo ko gàllankoor dinañ bëgg a ñëw daayira dinañ bëgg a ñëw ci woote yi waaye duñ ko man ndax itam xeeti ci ne si fi bari tey liggéey yi ñoo koy joxe nag loolu itam liñ ciy sàkku nga ñaanal ñu ci tawféex rek ci barkeb Serigne Touba Xaadim Rasul mu defal ñu ci tawféex ban am lu ko gënoon ba nga xamante ne si ñoom ñett li nekk xamoon te daan ko def danaan ko gën a fetli fii di dem daayira di di di di jàng alxuraan tey am temps bi waaye nag fi mu ne temps bi moo bëriwatul ci ñun ba nga xamante ni si ñëpp ci Cine yi lan nekk ñiy dem ci marché itam wax dëggit ñu ngi sàkku xewal bu baax a baax a baax loolu itam moo leen xaw a gàllankoor ba nga xam ni eh wax ji yépp it jëru sorel yaanu ko gën a xam ñaanal nu tawfiq rek ba nga xam ne buñ ko amee den ko mën a delloowaat ci liggéey sëriñ tuba bi den ko mën a delloowaat ci këri lislaam yi lii daal mooy tawati dong yi te itam di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te wér di ñaan yàlla yàgg nga fi lool te wér tey sàkku itam temps bi itam wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax e bi jaay nul musa sallallahu alayhi ñu ngi jéggul bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مباكي توبا براتو سيرين مصطفى مباكي مومسي عبد الخادر موغي لين دي نويو دي لين سانت دي لين غرم دي لين جوتلي نويوب خليف جنرال دي موريد موي سيرين شيخ سيدي مختار مباكي يالنا في ياغ لول تير دي لين جوتلي نويوب سيرين شيخ احمد مباكي ميغا خاني مو في توغل شيخ عبد الخادر mo ngi fab nuyo bobu nak ak ndokel gi ak tiant gi ak ngeureum li lepp diko tek ci seen mag yi leen jiitu ku mel ne sëñ Mbacke Fall ak seigne euh, ak seigne Xaar Ñang mi nga xamne mo yoron kaddu gi legi ak mbollem talibi yi fi nek yep seigne Alaaji Sey ñom ñep boo ko ñu jotale ko ci mbollem talibi yi nek ci gox bi sëriñ bi neena xolam sedd na ci yeen guy xelamit dal na ndax at mu jot bu fi ñewé dina gis ne yéen a ngi gën a yittewoo Serigne Touba yéen a ngi gën a yittewoo xasida yi yéen a ngi gën a yittewoo alxuraan yéen ngi di jaamu yalla ak di dundal ak talibé néna loli nak mu ngi len ci soñu ngeen fexé ba talibé gi bu len ko bokk l'islam ji yit bu len ko bokk ndax ñaar yoyu dara mënu ci manki ta daf daan wax ne mag mu baax daf daan wax ni l'islam ji na ngeen fexe bu mu fagg waaye gi yit na ngeen fexe bu mu fagg mooy ngay dem di noote béréb yu mel nii nga di ci jaabante lu bari nga xam ne boo fi ñëwee moom bu la saytaanee topp ba ngay dugg fu ne waxi sëñ tubaa wala alxuraan moom day wàññiku ndax lañ fay def dara wu ko ci waaye saytaane nag boo beddi mën na laa fexeel ba dugal la feneen foo xam ne bokkut ak fi ñu baaxoo gis ab murit te loolu lépp nag la muy jur mooy ñu di la soppi waaye yow dootoo soppi kenn te sëriñ bi dafa wax ne képp koo xam ne cuubug sëriñ tubaa moo ne ci yow foo dem da ngaa war a soppee waaye yow kenn waratu laa soppi. waye nee mo ngi len di sante nak ci li nga xamne ne wessu di len gërëm ci li tew di len xamal dal ne mo ngi len di denk fu ngeen mën nek ngeen jaamu yalla te xamne ne ko xamne ne da nga bëgg muccu mucc àdduna ak àllaxira da ngay sax ci ak jub ak jub ci la lepp nek na ngeen fexé ba sax ci ak jub na ngeen fexé ba seen xol bi bu len ci def dara lu Serigne Touba ndax Serigne Touba xaju tak dara ci xol loko bolel mu genn bayiko fa. nee na nag yitti yi nga xam ne moom ngeen fi gaar xam nga fii day zone industrielle boo xam ne chinois yi fi nekk ñoom ñooy joxe liggéey te ñoom ginnaaw xam nañ ne ku amut la la gënal am la fa sës ba tax na buñ jotee ci sénégalais yi wala ñi mel na ñoom dañ leen di liggéey loolu ëpp huit heure yi ñu war a liggéey danga ci gis sax ñuy def ay fukki heure ak juróom-benn gis ñoo xam dañuy def ay fukki heure ak ñeent te loolu métti na ndax xam nañ ne buñ ko amul seen morom mën na koo jël ngir njaboot gañ bàyyi ginnaaw waaye loolu lépp nag jàmbat yeeg li ngeen di xëcc te bëgg ko am ak li di jañ bëgg mu sori leen lépp dugg na ci nopp sëriñ bi te moom damay faral di dégg muy wax ne sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallaahu taala anhu nee na ko lu ñu yëg bokkut ak lu ñu yëgul te loolu moom dafa waale ci mboolem sëti sëñ Tuubaa rawatina sët bu mel ne moom nga xam ne ñoom ñooñee am na fuñ ko tegoon te bàyyi woon nañ ko xel kon nam ngi boole yaakaar yëpp ak maanaam euh, kóllëre gii ngeen séq ak moom ak teertu bu rafet bii ngeen ko teertu ak murit gi mu fi fekk akuk taalibe di boole aajo yooyu yëpp nag di ko teg ci loxol Cheikh Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne mooy buntam ci Serigne Touba mu teg ko ci loxol Serigne Touba mi nga xam ne yaakaar du fa tage lii ngeen def nag mu ngi ñaan ngeen yàgg koo def at mu jot ngeen di ko ganalee nii ngeen koy ganalee di ko teeru yàgg koo ànd ak moom te kenn bañ a manqué te at mu jot xéewal yi di gën a dolliku tañ di ci gën a daje ak ngërëmal Serigne Touba waa kon Serigne bi nee loolu ngeen fi garal wane né mbolé julit yi né ci gox bi yépp ño and doon ben né na loolu xolam sedd na ci kon mu ngi leen di soñu ngeen gëna and doon ben mu ngi sant ñu nga xamné ño bokku ci turux suufi yi ak fuñ fi mëna fété mo xam tidiane la mo xam laayeen la mo xam ñaseen la mo xam manam ci tariix bu mëna sëriñ bi nee na loolu ngi ci am mbékté di leen ñaan ngeen gën ko saxal mu gëna jëm kanam ndax loolu la sun borom digal loolu ñu sëñ sant khalifa bi fi nekk na la digle jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal tey wax amin te buy ñaan ngeen fas na kenn ku ne fas li bëgg te ngeen ñaanal ko moom it mu yàgg fi lool te wér. علي بلا سخات مصادني من بني لا أنصار إلا يكون لدى أبار مرمد بلا دهر وفيه